ba tax ba man bakar xam naa ne maa war raw ba tax ba man Babacar xam naa ne ma wara raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa teral danoo war a booloo xarug dee jox sëriñ bu mag bi lu nuy taaxee ke jëndee wataaki fas danoo wara a booloo faf xarug dee jox sëriñ bu mag bi lu ke jëndee wataaki fas mu jëndal mu ci taax ak wataa fasan njariñ ca àjjana lii gën nay ci say yëf te doo fi des ku yeewu dafay def cas yëfam joxe dal wéy bu yeggee fa jëm dal di boole yëfam ni cas ku dof nag dafay boole yëfam yépp yor bu wér ba xëy dee yëfam des fii mu dem du fa fekk tus mayul gaa yi tey ngir gaa yi tey duñu yokk nit dañuy yàq sab dox ak sa yëf dellu gotti mbas ñi nekk fi suuf ak gaa ña nekk ci taaxi kaw fi suuf lañuy xal seeta mujj ni cëpp bis ku ca kaw tuubal te jekki fi si yow fi si la mbooloo mépp jëm si ku daanu rus liggéeyal ba am loo xam ne jar nay wataaki fas te jar jonga taaxi kaw joxe ñépp gis danaa sàkku man ndimmal ba am ñàkk lépp lëf te sàkkooti ndimmal nag ba faf joxe lépp des sëriñ bi sarax nu ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rekk ay waral mu fés sëriñ bi sarax nu ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rekk kay waral mu fés fulal sunu gëm fàggul nu dooleeku fit wu rëy musal nu te may nu pal gu ñuy fedd leeke wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jub na lépp ni gàññ ak jàmm nuy sepp leeka fas reen nag dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk jubookub sàngama gu waa këram di mos reen ak dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk jubookub sangam ak waa këram di mos kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ko ki am te du jeexal. waaw alhamdulilah. noonu koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkk war a ànd ak moom. nu tàbbu ca ñoom ànd ñoom jëm fu ñu jëm mu jëmee nu fu ñu fu ñu fa mu leen jëmee loolu rek ñaan